yéen ñi di suivre suñu kër gi di Faaida TV bu ngeen bëggee di jot ci suñuy programme ak di seetaan suñuy vidéo da ngeen di abonné ci seen bii di Faaida TV ngir abonné da ngeen di bës ci bind bu xonk bi ñu bind abonné waaye bu leen fàttee bës ci kolos bi ngir man di jot suñuy notification te bu leen fàttee zem tey partager suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural alhamdulillahi almujib من عسنا فلن بليلة القدر الحمد لله المجيب ذي القدر من عسنا فلن بليلة القدر معزما لسانها في دهري عطا هذا قرا من الفساخن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk ñu ngi leen di nuyu te di leen ziara te di leen joxaat seen wàccuwaay bu baax mel na ne bu ñu déggee baytu xasida yi nga xamante ni sëñ Aline Badara yëkkati na ko xel day demaat ci li nga ni moom moo di liggéey suñu Tuubaa Xaadimul Xaadim ginnaaw boobu ñu ngi nuyu Cheikh Mouhamadul Mbakke ñaanal ko mu yàgg fi loolu ta ànd ak wér ndax nu kazalika ñaanal ko sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Mourou Mbedda waaye day mel ni ñaanal ko euh, sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbakke di xalifa euh, sëriñ Mouhamad Amin Baara Mbakke mu mel ni ñoom lañ koy ñaanal Cheikh Abdou Karim Mbakke xalifa Cheikh Abdou Aziz moom euh, sëriñ Mouhamad Layin moom sëriñ Tuubaa Xaadimul Xaadim waaye noonu lañuy Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadal moom euh, Cheikh ni bu ñu déggee loolu rek day mel ni kon njabootu Serigne Mouhamad Lamine Bara gi woote ki woote nag mooy kan Cheikh Abdou Aziz Mbacké ci kan la ko woote ànd ko mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoom ñooy ah, euh, ñoo woote bis boobu ànd kook seen kilifa seen jëwriñ seen suñu soppe yéen euh, day mel ni kon loolee bis boobu mooy kañ le douze incha allahu taala lay lan koy amalee fii ci Touba Medina kon day mel ni kaddu gi nii njëkk jox kenn koy Camara mu wax ci turu mbooleem jëwri ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gox goxaan yi dina ci woote incha allah bu ñu noppee dinañ jox Serigne Touba mu wax ci mbooleem programme euh, liggéey bi nu muy demee incha allahu taala bu ca jugee dinañ jox Serigne Fallou Touré mu wax ci mbooleem jëwri ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ñoom it ci biir daare woote ak mbooleem képp koo xam ne nekk na ci euh, euh, gox goxaan yi mu mel ni buñ ci jugee dinañ jox kenn ci soxna yi muy seen jëwriñ di soxna aram incha allah taala mu wax ci mbooleem soxna yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi waaye woote mbooleem soxna yi min iblis seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di jiital ci nuyoo ak siyaar bi suñu kilifa gi yi toog ci jotaay bi muy Cheikh Abdou Aziz Mbacke ibnu Serigne Fallou ibnu Cheikh Abdou Aziz Baara ibnu Cheikh ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen yëgal suñu bisu cant bi nga xam moom daan defar waa daayir Sahar nga xam ne ñoo koy taxawee di ci ànd ak seen jëwriñ seen kilifa sunu sëriñ mi Cheikh Abdou Aziz Baara nga xam ni ñu ngi koy amale fii ci Touba Touba Medina Fall di ci woo mbooleem waa daayir yëpp rek yi nekk ci gox bi di ci woo tamit daayir yi nga xamante ne si ñoo nekk ci fédération Mounawirou Bouniyane bi nga xam ni daayir Mounawirou Bouniyane bu Touba nga xam ne sëñ Baara Gueye moo ko jiite ak daayir Sahar Abrar bu góor gi jamaa nga xam ne sëñ Omar Ngom moo ko jiite ak daayir Sahar bu Dakar Tivaouane Pël sëñ Mouhamed jiite ko di ci woo tamit waa daayira Ndar nga xam ni soxna Yaay Fall moo ko jiite ñu ci woo mbooleem waa daayira fédération bi yëpp nga xam ne bis bi seen bis la sunu bis la ñun ñëpp dañ ciy liggéeyal seen Mouhamed Baara bu ko defee ñu ngi koy fàttali ñëpp rek di ko fàttali mbooleem daayira nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi ci Thiès ak Mbène faal yëpp. kon bu ko defee di jox sëñ Tuubaa ka war kàddu gi mu wax ci programme cant gi ni muy tëddee ba ni cant gi jeexee asalaamaaleykum wa rahmatulah. auzu billaahi mina sheytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim barke borom tuba barke borom tuba barke borom Touba barke Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke mbokk julliti mbokk taaliba yi ñu leen nuyu néew jullit néew mbokk taaliba yi asalaamaaleykum wa rahmatulah waaye ginaaw loolu néew boobu nag dañ ciy yëtal suñu kilifa suñu sëriñ Cheikh Abdoul Aziz Fallilou ibnu Cheikh Abdoul Aziz ibnu Cheikh Mouhamadul Amin ibnu ginnaaw loolee nag. ñu leen di fàttali bis bu ñuy amal saa ne fii ci Medina Fall Thiès bis mi nag ku ne xam ne ni daa am nu mu tëddee ni mu daan tëddee mooy euh, bu ñu xëyee suba incha allah rabbi dix heures bu midi dinañ jàng alxuraan incha allah rabbi bu ñu noppee midi ba quinze heures incha allah rabbi dinañ xewlu ginnaaw loolu euh, seize heures ba dix huit heures incha allah rabbi dinañ amal ziar boo xamante ni dañ koy jëmale ci sëriñ bi ginnaaw loolu nag vingt heures ba vingt trois heures nañ taxawal cérémonie boo xamante ni ci ndigalu Cheikh Abdou Aziz lañ koy doxalee ginnaaw loolu nag buñ noppee ci cérémonie bi minuit wa minuit ba deux heures incha allahu rabi dinañ tàmbali njàngu xasida bi ci wàllum kuréel incha allahu rabi buñ buñ noppee ci loolu nag dinañ tàmbali li nga xamante ni mooy njàngum aw mi ginnaaw loolu njàng aw mi nag sëriñ Ahmadou Guèye moom lañ ciy jiital ginnaaw sëriñ Ahmadou Guèye sëriñ musaa géey ginnaaw sëriñ Moussa Guèye sëriñ Basiru xol ginnaaw sëñ Basiru Xodd sëriñ Tambay nag moo koy àggale ñu ngi leen di wax ni programme boobu mooy programme bis bi na ko ñëpp bàyyi xel incha allahu rabbi ni nga ko doon yëglee noonu la ñu ko yëglee saa su ne kon bu ko defee ñëpp bàyyi xel ni nga ko daan defee noonu la koy taxawoo saa mel ni Baye Fall dinañ fi ñëw euh, yëngu ci wàllu zikrullah kon mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki Medina faal ak waa mbokki Thiès ñoo ngi leen nuyu baax di leen jox seen wàccuwaay di nuyu suñu sëriñ suñu kilifa suñu jëwriñ Cheikh Abdoul Aziz Fallou moom Cheikh Mahmadul Fadal moom Cheikh Abdoul Aziz moom Serigne Baara Mbacke moom Cheikh Ahmadou Bamba ñoo ngi koy nuy bu baax di ko ñaanal Mbacke Balla mu yàgg fi te wér naal yi nga xamante ni moom la naar liggéeyal maamam ja Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke yàlla ko suñu borom mottali yéen bi oyof toll barke Cheikhul Khadim Mbacke mu mel ni rek. dañuy dañuy jaalale kàddu yëgle yi nga xamante ni ñoo ngi koy daan yëgal mboolem daayira yi nga xamante ni sunu bis bi daan def chaque année moo dellusiwaat di le 12 novembre 2022. rek dañ koy yëgal daayira yi nga xamante ni ñoo ciy teew chaque année ci daayira Tazawudu Subaan njiital baaba kër jóob ak daayira Sopp Serigne Saliou njiital Baye Bàcci Gueye ak daayira Sopp Serigne Saliou bu njàppandal njiital Serigne Wade kon bu ko defee noonu la ñuy def nag di ko fàttali dëkkandoo yi comme niñ ko daan defee chaque année. mu mel ne dalluwaay na ñëpp génn rek dimbali ñu ndax ñoo nu mën a jàppal ci bis bi ndax danoo ni gan moom terale te gan fu ne la ñuy jugee kon bu ko defee rek ñoo ngi koy fàttali ñëpp fu gan daan daan daan daan daan dal rek ñoo ngi leen koy bàyyiloo xel ñu daal di néegi daal di yaata ndax gan moom daanaka du fi yàgg ñaari fan ñetti fan kon na ñëpp yaatal rek ñu daal di daal di àndandoo booloo doon benn daal def bis bi. waaw kon bu ko defee noonu la ñuy def nag daal di jox jëwriñ soxnaaram méng mu daal di jàllale kàddu soxna yi. bu noppee rek ñu daal di àggali des ci liggéey bi jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di mbokk nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu soxna yi fi toog yëpp di jiital ci nuyoo bi nag sëñ Abdou Aziz Baara di leen fàttali nag bis bii ñu jëm muy bis bi ñu daan def at mu nekk ñu bisub sëñ Baara bi di ko fàttali soxna yëpp nag soxna yëpp maa ngi leen koy fàttali te bëgg taxaw taxawaay biñ ko taxawoon daaw ñu taxawaay ko taxawaay bu mel noonu baa bu ko raw. ndax taxawaayu daaw bi rafet na lool sañoon nag jigéen ñëpp kenn ku ci nekk sab lal ñu ko wàcc xajal gan yi gan yëpp gan yëpp ñu yaatal leen gan yëpp ñu yaatal leen teeru leen te teral leen te cantkat buñ ko wootee cant teral a tax teral dog moo tax ñu woote ak cant ak sant Serigne Touba kon nag soxna yi bis bi yéen a ko moom lépp lu ngeen ci mën na ngeen ko def na ngeen ko daan taxawee rek na raw ren a wa rahmatulah. ah mbokk yi kon nag yéen a ko déggandoo mbooleem jiwur yi nga xamante ni war nañu ci bés bi yaakaar naa ne waaye day mel ni rek li nga xamante ni moom moo kon programme bi na ngeen xam ne kon noonu rek la tëddee mel na ni nag daanaka sëriñ bi da cee def lu rëy loo xamante ni li nga xamante ni lañ tuddee parrain nga xam daanaka moom lañ wax ni moom lañ tuddee bés bi sëriñ bi da ko tuddee kan wëllëreem kan soppeem kan xaritam kan ki nga xamante mooy sëriñ Pape Mbow Aqsa képp koo xam si Abdou Aziz Mbacké da nga mën kan mooy sëñ Pambo ak Sam kon day mel ni moom la jël bis bi jox ko ko kon nag yaakaar ni bis bi mat na ñi ngi woo kulluhum képp koo xam ne mi ngi ci gox rek nan xam ni noonu rek la demee kon nag Mbacké ñi ñaan suñu borom yàggal la fi te ko wér mbooleem jëwriñ yi nga xamante ni ànd nañ liggéey bi suñu borom euh, yolu oy fayal leen yan bi muy góor muy jigéen kon na xam ne loolu mooy nekkoon kaddu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kon dañuy daal di jox sëriñ bi mu def ñaanal ñaanal mbooloo mi ñu waaj bés bi incha allah samedi jam jàmm incha allah ahousu billahi samiil alim min acharri iblis cheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim euh, mbokki juli yi mbokki taalibe yi ginnaaw ba nu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ñu ngi sant sunu yaakaar tey ak ëllëg muy al Xadim di ñaanal xalifaam fi nekk muy Cheikh Mouhamadul Mountakha xaafisahu llaahu waraahu ñaanal ko sun borom gën koo koy yàggal te wéral ko te gën koo le sàmm ba lim naal yëpp yàlla àggale ko noonu lañ koy ñaanale xalifab cheikh Mouhamadul Amin Mbakke moom muy cheikh Mouhamadul Moustapha moom cheikh Sidil Muxtaar Mbakke ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool ba lim naa la liggéeyal cheikh Mouhamadul lépp yàlla mottali ko noonu lañ koy ñaanalee sunu wajur sunu kilifa. muy Cheikh Abdoul Karim Mbakke moom Cheikh Abdoul Aziz ak sunu sëriñ muy Cheikh Abdoul Aziz Mbakke moom Cheikh Mahamadou Fadal Abdoul Aziz Baara euh, ñu ngi mbo woo mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ci bis bu bi nga xam ne daan nañ ko amale fii ci Thiès Madina Fall ci buntu jumaay Murit war a tombeek euh, le euh, novembre di samedi bi ñu. jub incha allahu rabbil alamina ñu ngi ñaan suñu borom yóbbuñ ci jàmm ak salaam di génn ci alhamdulilahi rabbil alamina ñu ngi ci woo mbokki jullit yëpp mbokki taalib yi yëpp képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa rek ñu ngi la ci woo ci bis bi nga eh, bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn eh, bis nag comme ni ko Sëriñ Tuubaa waxee mu ngi xëyee danañ jàngal quraanul karim moom la ñu yendoo incha allah ba waxtu xewlu jot xewlu eh, ak masla gan yi bu ñu àggee ba julli timis ba pare danañ génn ci tànt bi ànd koog seeti Serigne Touba yëpp ñu waxtaanee Serigne Touba mboolem njabootam gi ak Cheikh Mouhamadul Amin ak buñ paree àggale koog njàngum xasida bis boobu nag kon ñu ngi ci woo ñëpp fas nañ yéene tamit di ci ñaanal ñaanalale suñu waajur mi nga xam yàlla dogal na mu nekkoon fi daaw muy soxna Sooda Ñang te yàlla dogal. ren jii fekk ko fi mu fekk ko barsàq fas nañ ko yéene ñaanal ci bis ba ak mboolem waajur woo xam ne ni dem nga ak mboolem jullit yëpp euh, kon na ñu ngi woo ñëpp bàyyi ñu kenn bàyyi ñu fenn xëy na képp ku seetaan vidéo bi rek mooy sa boote mooy ñëw nañ ba ci yow daal jox la loxo yëgal la bis bi bis bi nag amuñu lu dul moom ndax euh, bis la boo xam ne ni sori na ci ñun lool ndax kiñ koy defal moo tax muy kan mu Cheikh Mouhamadul Amin amuñu lu dul moom Euh, li ñu naan kenn ku ne bu ñu la dàqee fa nga dëkk rek nga fa nga fa nga dëkk rek ngay jëm nga jëm ñun nag jëmuñ dëkk ñu fenn fu kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké kon nag képp koo xam ne nii sunu mbëkk walla sunu ndam mooy sa mbëkk na nga ñëw ànd ak ñun bis bi te yàlla rek tax ak jëmmi Sëñ Tuubaa ak jëmmi Cheikh Mouhamadou Lamine ñoo ngi ñaan nag képp koo xam ne nii ñëw nga ci walla nga am ci yéene wala nga ñëw jëf ci wala nga ñëw ci ñu ngi ñaan suñu borom faj sa say say aajo adduna ak àllaaxira ci daraja Cheikhul Khadim yégal ñëpp mboolem kilifa yi nekk ci Thiès di ko tàmbalee ci Serigne Moussa Fall ak Serigne Salihou Touré ak euh, mboolem kilifa yi fi nekk yëpp rek bu ñu tuddee ñaar ñu daanaka dañuy yóbbaale ci kilifa yi yëpp di ko yëgal suñu mbokk tijaan yi kër maam El ak euh, ñi fi nekk ñëpp rek bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu ñenn ñu fenn. Euh, bis bi nag tuddee nañ ko kenn ci sunu suñuy wëllëre muy Serigne Pambaw Akasa dëkk fii ci koñ bi ñu koy defee muy sunu wëllëre bi ñu nekk ci daara ji ba léegi moom la ñu tuddee bis bi. di ko ci delloo njukkal ci ànd gi gi mu ànd ak ñun te yàlla rek tax loolu lañ moo tax ñu tuddee ko bis bi euh, kon nag ñu ngi koy euh, yëgal ñëpp tamit nag euh, di ñaan daal yàlla yóbbuñ ci àggale mébét yeeg yéene yeeg yëpp te di ko ànd ak daayira Sahel Awraar bii fi dekk ñu ngi ñaan lépp luñ ci jublu rek te te yéene ko ci sunu bon defal ci kattan. defal ñu ci ndam loo xam ne ndam lu kawe seen njort lu ñun ñëpp ci daraje Cheikhul Khadim waaw kon nag loolu daal xëy na loolu moo nekkoon kàdd yi woote yi ñu ngi ñaan nag ci daraje sëñ Tuubaa daraje sëñ Baara yàlla nañ ko fekkee waa at yu bari lool te mu ànd koog wér balaa déwén na ñëpp yokk aajo yëpp faju ci daraje Cheikhul Khadim daraje Cheikh Mouhamadou Lamine ndax ki ñu koy defal moom mat na ko Cheikh Mouhamadou Lamine nag képp ku ko dégg xam ne borom cër la ci Cheikhul Khadim kon nag képp koo xam ne bëgg ngaa cër woo ci cër boobu ko yàlla defal Euh, mu jugee ci sun borom subhanahu wa taala jaar ci yonent bi alayhi salaam mu jaar ci cheikhul xaddim mu defal ko ko cër boobu képp ku ci bëgg rek na nga xam ne bis bi bokk na ci bis yi nga xam ne ni incha allah loo ci bàyyi bëgg bëgg bëgg a cëru mën nga ko ci allah. kon bu ko defee ñu ngi soññu mboolem koñ bi nga xam ne fi la ñu defee bis bi te yàlla dogal ñu yàgg am leen teg ñoom taraanga depuis bi ñu nekkee ci daara ji ba léegi. Euh, ñuy ñuy sonn ci bis bi nag di génn seeni kër di génn seenu njaboot di jël seenu njaboot gépp tàbbal ci bis bi ñu ciy sonn wax dëgg yàlla ñoom tamit ñu ngi leen di gën a woowaat ci bis bi buñ ko tàmbalee ci Serigne Pape Samb mi nga xam ne yàlla dogal na këram lañuy nekk ak Serigne Touba Lo Serigne euh, Moustapha Sarr ak euh, kër soxna ñoom ñaana Seck ak soxna Aram ak soxna Ndey Seck ba ci kër Baye Lamb Fall fépp rek wax dëgg yàlla ak ba ci kër ñoom si Guèye moom bàyyiwuñu kenn ba ci kër Mamadou Dieng nga xam ne yàlla dogal na euh, maanaam dañ daan sonn ci bis bi lool. waaw moom daal euh, waa koñ bi yëpp rek boo gisee ñu tudd ñooñu dañuy bëgg ñu yóbbaale ñi ci des waaye daal ñu ngi gën a tata tatagal suñu suñu suñu suñu suñu bagaan ci ñoom ci lépp luñ mën ci gan yi rek ndax xam ne gan yi gan yi Serigne Touba lañ fépp fu ne lay waay di bàyyi ko nañ xam ne ne gan yi moom ko ndax bis bi. seen bés la man damaa jógee Touba laa dëkk damaa jóge foofa newoon ci daara ji yàlla dimbali ñu ñu fi def bés bi di leen ko defal ñoom kon nag bis bi seen bés la dañoo ñëw di leen ci di ko ànd ak ñoom rek waaye bis bi moom yéen yéen ko moom yéen waa koñ bi ñu leen sant nag ci taxawaay yi weesu waaye yiñ dëgmal tamit ñu ngi leen ci soññ bu baax baax di ñaan yàlla defal ñu ci ndam lu kawe suñu njort ci barke Cheikhul Khadim barke Cheikh Mouhamadou Lamine ñu ngi ko yëgal tamit waa waa jàkk waa jumaa yi murid yi yëpp rek di ko commencé ci euh, Euh, sëñ Max Baye maxtaar Gueye moom nga mooy imam bi euh, ak ñi ci des ak sëñ Moustapha Touré ñëpp rek bàyyiwuñu kenn daal wax di yàlla ñu ngi woo jànkoor xasida yëpp tamit nag ndax jànkoor xasida yi ñëpp suñuy wëllëri lañ bàyyiwuñu kenn ndax bis bi moom dara gënuñu cee ñor mu lu dul alxuraan ji ak euh, salaatu ala nabi yi ak xasida yi kon nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi soññaat jànkoor xasida yëpp kuréel yeeg rajaskat yeeg yëpp rek incha allah ñu ngi leen soññ ci bis bi di ñaan yàlla yóbbuñ ci ak jàmm ak salaam fekk ak jàmm te tal ko ba wees ko ak jàmm ak salaam incha allahu rabbi ba fas yéene waajal màggalu Mbàkke Kajoor gi ci kàttanu suñu borom incha allah yàlla yóbbu mu ci ak jàmm jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu